final bi fi amoon moo fi amaat ndeysaan Thiaka Faye c'est loolu sawaruma ci poids lourd mu xante bee ëpp Doudou Sané war na ko ndombo Doudou Sané daan na Thiaka Faye Sané daan na Thiaka Faye daan na ko daw génn la ilaha illallah